Euh, bi may def nii ci FMI bi la <laughs> waaw FMI bi léegi mën naa ci wax jàll na ba pare coow nañ koo coow coow coow léegi mën naa cee wax FMI bi damay commencé ci commencement bi 3 juin 2023 ki nga xamante ne ne moo di ex président Macky Sall dafa génn mu ne moom bokkul ci élection yi ñëpp ne alhamdulilah rabbil alamin donc bu mu ne bokkul juin la woon ñu ñëw ba novembre Euh, ki nga xam ne mooy Emmanuel Macron di président France daal di koy invité foofu euh, pour mu participer si li nga xamante ne ni moo di euh, les quatre P donc pacte de Paris pour la planète et les peuples ci lañ ko désigné ne moom envoyé spécial la maanaam moom Emmanuel Macron daf ko embauché ma génn fii ma ne Sénégalais normalement waruñu nangu lii ñu ñu am président en exercice président boo xam ne actuel président yow beneen réew du organisation du dara réew France jël la embauché la euh, di la liggéeyloo ñu ñëpp kenn waxu ci nekk woon priorité kenn. léegi ñuy dem di dem ba mois de décembre moom mu génn pour def discours fin d'année ci la annoncé woon ne dafay lancé li nga xamante ne moo di fondation bi nga xamante ne nee na pour la paix le dialogue et le développement <laughs> ça m'avait fait rire en plus léegi bi mu ko annoncé ñu doxaat di dem di dem. mu aj élection yi bu mu ajee élection yi après mu daal di dissoudre gouvernement bi bu mu dissoudre gouvernement bi foofu la muy tàmbalee mu daal di jël ki nga xamante ne ne moo ngi tudd Omar Demba baa ñu koy woowee ODB nekkoon euh, conseiller diplomatique u ex-président Macky Sall mu jël tamit ki nga xamante ne moo di Mankeur Ndiaye te nekkoon fi ministre des affaires étrangères nga xamante ne moom li mu am ci expérience ak ay relations euh, si monde bi en termes diplomatique am ko vraiment atu la mu jël ko nommé ko ministre des affaires étrangères tegaat ko ci wetam. jël ki nga xam ne mooy Omar Demba Ba bi ma leen wax daal di koy jox li nga xamante ne moo di gestion fondation boobu noonu donc. Euh, tout ça pour tënkal leen ne ex président Macky Sall dafa jël ñi mu bëgg jël teg leen ci wetam pour ñu defaraatal ko image am ñaata at maa ngi leen di wax ne ex président Macky Sall leen rek moo ko ñor mooy image am te image am boobu yàqu woon nii te moo ko yàq kenn yàq ko moo def nit ñuy wax daf ko métti. parce que moom paraître nit ñi nuñ koy xoolee ak li ñuy wax ci moom dafa important ci moom moom am important di exister ak ñu koy waxal ay baax-baaxam ak di jaay image am c'est très très important pour lui moo tax mu jël ñaar ñii c'est stratégique. léegi nag teew bu mu teew foofu noonu d'abord 4P maanaam li muy liggéeyal Emmanuel Macron te ngeen koy woowee càq-càq loolu la fa nekkee woon loolu benn loolu moo ko fa tegoon ba ba pare moom moo nekkoon modérateur bi. donc moom moo nekkoon ci digg bi nekk euh, ki nga xamante ne mooy modéré débat bi amoon autour de la table maa ngi ciy ñëwaat dama bëggoon nag préciser ne euh, ki nga xam ne mooy réewu France daf ñu yàgg def genre coup bi te daf koy def ak yeneen réew yi nga xam ne ne ay colonie woom la ñu woon euh, bu ngeen xoolee ex président Abdou Diouf bu bi ko Ablaye Wade gagné bay dem France dafa jël daal di koy jox li nga xam ne moo di francophonie en fait genre chantage la boo xam ne France dafa koy jël toujours euh, def ko nii si suñu baat yi comme pour xoj ki nga xam ne mooy président bi fi toog mu jël beneen président bi aussi di ko utiliser contre yow. kii nga xamante ne ne moom la jàkkaarloo foofu te mu teewal ñu fa muy ministre des finance ministre bii nii Abdourahmane Sarr 97 la dugg FMI liggéey na fa quinze ans doon du Macky Sall mooy ñëw. Euh, pour euh, daan dafay am lu muy jàngal kii nga xamante ne moo di wax man Sarr benn ñaax li tax mu teew fa wax naa leen ko mooy quatre p bi donc waa 4P ñoo ko fa yónni parce que ci thématique yi ñu doon waxtaanee ci table boobu noonu def ci bokk li nga xam ne moo di mbirum climat bi impact bi nga xam ne financement bi ñuy def ci développement réew yi euh, daf koy am ci climat bi donc moom loolu la tey woon d'accord léegi nag ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci autour de la table mu ngi amoon directrice générale FMI bi mu ngi amoon président banque mondiale mu ngi amoon premier ministre bu Barbade mu ngi amoon ministre des finances français bi Euh, ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo nekkoon autour de la table donc nekkul woon Macky Sall ñëw toog euh, naan dafay jéem a waxal Sénégal seen teewalu fa Sénégal Sénégal amoon na fa délégation ba pare te délégation bi waxoon naa leen kan ak kan la amoon ki nga xamante ne ne moo di ministre. des finances et du budget mu ngi amoon ki nga xam ne moo di ministre de l'économie du plan de la coopération ministre de l'énergie du pétrole et des mines euh, ak ministre secretaire général du gouvernement donc ñoom ñeent ñooy délégation Sénégal am na sax communiqué boo xamante ne ne génnee nañ ko euh, bu ma leen ko tënkalee rek ñu ngi wax ne ne euh, ñoom délégation wu Sénégal bi demoon nañu ci fi nga xamante ne mooy waxtaan bi nga xam ne chaque année ñoom waa FMI dañu koy def ci même période bi mu ngi amoon du 15 au 21 avril ñi waxtaanal bokk na ci ay investisseurs privés ay organisations ak mbooloom li nga xamante ne moo di ay sociétés financières ay agences euh, ak yooyu noonu yëpp nga xamante ne ne ñoom dañuy participer si li nga xamante ne moo di ay financement ay gestion wu euh, budget ak yeneen ak yeneen donc ñoom ñu ngi wax ne délégation bi am na ay échange ak ay ministre des finances euh, yu bëri bu ci mel ni bu Côte d'Ivoire bu ci mel ni bu ñi nga xamante ne ne ñooy UEMOA waxtaan nañ tamit ak ministre finance su Mauritanie ministre finance su Gambie wax nañ tamit ne am na ay président de département yu leen recevoir comme département d'État américain bi banque africaine de développement banque ouest africaine de développement banque européenne ak yeneen ak yeneen. donc jàpp ne Sénégal bu mu jëlee parole li mu wax mooy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, lu muy mës défendre maanaam souveraineté ñu ne tamit éthique la ñuy dox. Euh, bonne gouvernance lutte contre la corruption maanaam xeex guerre justice lépp leer ci li nga xam ne noonu la ñuy gérer yëfu sénégalais yi ñu ne tamit euh, ñoom dañoo bëgg loo xamante ne mooy souveraineté économique maanaam ñu moom suñu bopp ci suñu koom-koom ak suñu xaalis daal ñu koy doxalee et tout te loolu waru mën a tere ay partenaires euh, ñëw liggéey ñu ñun quoi que ce soit c'est juste que ñun dañoo préférer utiliser suñu propre fonctionnement bopp di utiliser suñu ay ressources réew suñu ay l'impôt ak suñu ay ressources pour mën a sukkali suñu réew plus que di dem di àbbi ji bitim réew wala di jël ay xaalis yoo xam ne dañuy conditionné di ñu wax nan lañ koy defee parce que loolu la ñu euh, dikk li nga xam ne moo di population te jeunesse bi aussi dañuy xaar si loolu noonu ci li nga xamante ne moo di ay liggéey yoo xamante ne ci biir réew mi lay doon pas ñu génn uti ko feneen donc ñoom loolu lañu ñu euh, défendre bi ñu jëlee foofu noonu parole lenn leneen luñ leen wax ne moo fa xew du dëgg lii moo fa xew te lii la communiqué bi wax moom laa leen liixal voilà